mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média dal leen jàmm seen émission riiru campagne ñu ko tàmbali di def nag bi campagne bi ubbee bu léegi bu di heures jotee ñu daje fii ngir rek ànd ak yéen wan leen tamit dégtal leen lépp lu tukkee ci campagne électorale bi ak ñin investir ci liste yi ñu nekk ci biir réew mi. di dem rek ngir sàkku ji baatu askan wi am na it ñu nekk bitim réew ndax saa su nekk ñu fàttali ne élection yi nag dafa am lu mu ko wutalee ak yi ko fi jiitu ndax bii yoon juróom fukk ak juróom ci ay doomu Sénégal ñoom it dañ leen fal ñu teewal fa Sénégal yi nekk bitim réew nar a nekk ay député kon 47 liste la ñoom ñooy xëccoo rek siège ci assemblée national ñu mu siège yi bi yoon nar a nekk téeméer ak juróom benn fukk ak juróom saa su nekk nag dañ fi ànd ak borom xam-xam ci wàll wu nekk ndax élection yi nag dafa soxal domaine bu nekk du rek ci wàllu politique ba tax na tey ñu am mbégte dalal fii professeur Aïda Sylla moom mu ngay jàngale ca faculté médecine ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xam-xam màcc ci wàllu psychiatrie ak psychothérapie yooyu yëpp moom dafay koy jàngal nekk it chef division santé mentale fële ca ministère de la santé professeur ñu ngi lay maa ngi lay fay. waxtaan wi nag sa xam-xam comme dafa màcc ci mbiram xel ak dundu askan wi ñu mel coow leeg mbiram fitna yu ñu fi doon dégg leen bëgg rek xam naa ci biir émission bi nga daal di ñu ci am loo ñu ci baaxee ci wàllu xam-xam ak nee say def ngir saafara ko ndax am na ñoo xamante ni tiital nañ la laataa nag citoyen nga yaa ngi jóge nii sa hôpital bu saxante est-ce que campagne bi yaa ngi koy seetaan. waaw yenn saa yi ma seetaan ko. Hmm. yenn saa yi du waaye su ma amee jot ndax damay guddee wàcc ñaareel bi yenn saay bu ma sonnulee torop dina am yu ma ci jot a xool hmm, waaw dinaa koy gis de ñu ngi wax waaye nag yenn saay yi topp ko dafay jafe yi xalaat ne xëy na bu ñu ko defoon ay thème nga xam ni tey dañ naan ñëpp ci wàllu koom-koom la ñuy wax wala ñu ne tey ñëpp ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy wax loolu doon na gën a jàppale nit ñi ñu xam daal ci li ñuy wax ki nga xamante ni moom la ci bosam gën a aw yoon mais niñ koy tegee ci eh, kii ci rajo yeeg télé bi yenn saa yi wax yi daal day demee côté bu nekk ba boo sonnee trop doo mën a jàpp bu baax eh, bon jaxasoo sax xëy na du nekk lu baax mais yi ñuy wax dafa dul bokk ndax kii mën na jiitu wax ci domaine bi kii topp ci wax ci domaine bi te loolu kii seetaan day jafe mu ne ah kii laa wóolu wala kii ba tax na bu fekkee ba xamoo ki nga wóolu ragal naa ni ci temps d'antenne yi dina jafe nga jàpp ci ne kii la. Mhm. ci mhm. différence bi yow da nga jàpp ne daal euh, mbiram thématique yi lu ci am solo la ci programme. waaw daal ñuy bokkandoo bis bu nekk ñoom ñëpp ci lu ñuy wax doon na yombal nit ñi am gis-gis ci fi ñu nar a jëm ñoom. Mhm. Euh, ñu des euh, ba léegi ci li nga xamante ne sax xam-xam ci la gën a màcc mbir muy affaire violence yi doon wax noonu parce que ñu ngi ko nemmeeku ci campagne bi. laata loolu même ci société bi ak la xewoon ca stade ba Korok la nga jàpp ni moom moo waral fitna yooyu. waaw fitna yi nag moom dafa bëri e, jamono yi et surtout fi muy àgg moo sori ndax xam nga loo xam ne dem na ba bakkenu nit di ci lor mooy e, daal àgg na fu sori e, fitna nag saa yu fekkee ba ay nit ñu bari ñu ngi jëflante nekkatul kenn ku nekk di dem ak sa bopp ndax kenn ku nekk di demal sa bopp sax amul mais fu ay nit di jëflante rek bu dee yaruñu leen bu dee wanuñu leen fu ñuy jaar fitna nekk na loo mën naa yàq jëflante nit ñooñu te buñ ci àgg fekk na ca njëlbeen ña koy def ba ñu juddoo fañ leen yareek niñ leen di gunge am na ci lu bari loo xamante ni manqué na te it tamit am na lu xew loo xam ni eh, daal téyewuñ ko nañ ko war a téye bu mu yóbbu leen ci loolu mhm. da kon na nga jàpp ni yar gi da ci am solo li naan éducation de base boobu waaw xam nga tali bu ko ñëpp dee bokk dañuy rëdd chart ne mooy code de la route ne ci ñëpp jaar lu ko moy dootul neex xam nga bu ñu naroon di dawal kenn ku nekk di def nu mu la neexee du sotti moo tax doomu aadama bu juddoo jëm mag dañ koy yar waajur daf koy yar àddina daf koy yar diine daf koy yar yoon daf koy yar te ñooñu ñëpp boo gisee li ñuy wax daanaka waxin bi mooy jafe mais ñooy bokk te li ñuy bokk mooy li nit ki mën a def ba dëkk ak ñeneen ñi te du leen lor waaye ñoom itamit duñu ko lor ndaxte boo seetloo nit ki même li muy nekkee xale buy soog di juddu day yaakaar ni moom rek moo nekk ci àddina te lu ko neex mu def ñun ci suñu domaine bu ñu gëstoo dañuy gis ne xale bi nekk liir sax yaakaar na ni xiif dal di suur moom kenn moo ko def xam nga fekk yaay jee ko jox mu nàmp mm-hmm. boo seetloo fii ci cosaan dañ naan yaay ji bàyyil sa doom ji ngay tëb di ko jox ween bu jooyee rek nga jël sa ween bi jox ko yenn saa yi bu jooyee danga koy lu foofu la yar bi di commencer ndax xale bi xam ni du moom rek moo nekk de mu bañ a yaakaar ni dinaa ci li may wax nii dinaa ci ñëw après ci violence mhm. mu bañ a yaakaar ni moom rek moo nekk ci àddina walla moom rek moom moom nit ñi ndax foo gisee violence rek dafa fekk ne am na instant boo xam ne nit ki fàtte na ni du moom kenn moo nekk dafa nekk ak ay nit fàtte loolu moo tax nit mën a rey nit wala nit gaañ nit parce que jamono yooyu li mu bëgg rek wala li mu bañ rek moo koy gëlëmal ba nga xam ni loolu rek lay gis dootul xam ñi nekk ci wetam li tax man la yar bi am na solo bu dee ca ba muy nàmp la ñu commencé di ko yar ci li ñuy wax firistre mooy nit ki bëgg dara nga bañ ko koo jox mu xam ni du lu mu bëgg mën na koo am yenn saa yi mën na bëgg dara du ko am su boobaa day taxaw xalaat loolu bu amulee bokk na ci li nga tax moo li nga xam ne mooy tax nit di violent ba bu ko dara fëkkee dootul gisati dara lu dul li mu bëgg rek dootul xalaat ne ah nit ki kat ni man la mel dafa am bakken dafa dund day am yëg-yëg wante day mel ni rek benn morso bant la parce que li ko soxal moom mooy li mu bëgg su boobaa mën na ko gaañ mën na jël bakkenam ngir moom mu am li mu bëgg looloo tax yar bi am ci solo nit ki fi ngay màgg yëpp foog ñu wan la ni du loo bëgg a def def du loo bëgg am am mhm. loolu lu am solo la kon da nga wax ni bu ma comprendre li nga wax waajur yi am nañ ci part de responsabilité bu am solo bu am solo bu rëy bu ci ëpp daal ñoom la mais su weesoo ci waajur yi tamit xale bi su àggee fenn ñeneen dañ ciy dugg rawatina école bi école bi dëkkandoo yi societé bi bu njëkk ba suñu societé am na foo xam ne bu fa xale tolloo dootul nekk waajuram rekk a ko yar ñéppay ñëw taxaw di ko yar boo gisee lël daan am ñi mag ñépp ñooy ñëw nekk ay selbe pour wan xale bi àddina mm-hmm. wan ko yow àddina bi danga ko bokk ak ñeneen te ñeneen ñoo nga ko bokkal ñooy sa nawle danga war a am foo jaar ak ñoom dafa war a am loo leen muñal dafa war a am tamit loo leen di wan ba ñu xam ne yow ñàkkoo fayda borom fulla nga ñu tàggat ko ci. mais école bi tamit jël wàllam. <laughs> ci loolu bala ñu dem ci école professeur fii boo fi duma doomi jàmbur léegi way juróom yi ci boppam ñoo lay njëkk attaqué ne la sama doom lu sa yoon waroo koo yar ak yooyu de est que loolu taxut xëy na nit ñi xaw a démissionné ci côté boobu. dëgg la loolu am na ndax léegi ak ni ñuy doxalee du ku nekk mën nga ñëw wax ci doomu jàmbur. mais du tax ba tey mu nekk ci ay waajuram rek ndax am na yeneen yuy dugg télévision bi dafay dugg livre yi muy jàng dañuy dugg école ba ñam fay taseel dañuy dugg sport beeg musique bi ñi muy seetaan looloo tax modèle am solo ñi nga xamante ni léegi yàlla def na ñoom rek la ñuy wan xale yi muy ñi nga xam ne ñoom la média yi di wane war nañoo am comportement bu mucc ay royukaay waaw day am torop solo ndaxte xale yi dina am fuñ leen teg dinañ leen déglu ndax léegi eh, lu ci ëpp ñi ñuy wane du nekk boroom xam-xam du nekk yarkat mais ku am tur ñu wane la su ko defee nag ñooñu tamit war nañ xam ne ah léegi kat la ñu nekkoon am na lu ci yokk ndax ay yarkat lañu mm-hmm. su ko defee ñuy mën a xool ci ñoom daal leen di kii ba léegi ñu ñëw ci loolu parce que violence bi quand même ñu buñ ko seetloo ci géew politique bi aussi ci bari na fi trop ñu bëri dañoo jàpp ne xëy na li ñuy xëccoo moo tax muy ay avantage ak lépp lu jëm ci ak nguur est-ce que loolu aussi du dem ba bopp sa bopp gi jiitu li nga xamante ni moom la ñëpp bokk muy alalu askan week yooyu. waaw li ñuy xëccoo am na solo. mais man euh, bi ñu waxee ni violence bi am na ci ci campagne bi wax dëgg yàlla bettuma torop lu tax bettuma torop te itamit euh, tëbuma rek jiiñ ko politicien ndax dégguma wax dëgg yàlla benn politicien mu ne nit demal nga attaqué kii mm-hmm. waaye laata campagne bi di commencer xam nga man su may déglu rek damay taqale yu bari yu ànd mm-hmm. laata campagne bi di di di di commencer dama dégg ay publicité dama dégg ay publicité yoo xamante ni. Mhm. dafa xawoon na daal euh, tey sama xel. ndax dégg naa ñuy publicité naan ñoo xamante ni euh, dañu nar a wattu kaaraange. ñiy dem di ah, politique. ñoo xamante ni dinañu leen aar. mooy mooy agence sécurité dañ ci ñëwaat danga may may rek ñu génn comme ni ko principe bu émission bi laaj yenn saa yi dem. Euh, daje ji rek euh, ak sunu correspondant yi reporter yi nekk ci terrain bi ngir ñu dégtal ñu programme mu candidat yi Cheikh Anta Diop. yaa ñu teewal ca Thiès euh, ginnaaw bi ma loon yooyu ñu ngi waaj a boucler deuxième semaine campagne bi Thiès tey naka la fa demee ci wàllu yëngu-yëngu. waaw tey ci wàllu yëngu yi Chérif ba léegi ñu ngi wéyal ak waa Manko Wattu Sénégal te Mouhamed Massali jiite ko tey jii demoon na ci quartier dixième Lazare ak carrière tey ji ci ngoon ngi nag fas yéene jubal fi nga xamante ne moom mooy xombol euh, jaxaw nag ci guddi la ko def daanaka tard dans la nuit ci guddi gi yëpp fa la nekkoon doon campagne wax nag askan wi moom ndaw lañ la ñu ko jàppale ngir mu am baat mën a toog fële ci assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar si lay jaay ko ak euh, jigéen ñi xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom sax ci léegi rek dañ doon amal jàkkaarloo taskatu xibaar yi même bi ñoo dugal seen loxo euh, ci campagne ba tax na ñoom dañoo jël Thiès daf ko ay pàcc ndaxte nee nañ bëgguñu Idrissa Seck gañe leen ba tax dugg nañ ci kër yi fépp fu Idrissa Seck jaaroon rek ñoom dinañ fa jaar ngir mën a euh, ñaax askan wi nag ñu woteel Benno Bokk Yaakaar jamono yi nag euh, Chérif euh, premier ministre di Boun Abdallah Dionne ñu ngi koy xaar ni fële ca Tivaouane sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine sax nee nañu sax moom moo koy teeru ndaxte jóge na ca tool ya fële ca Saloum ngir dikk teelu premier ministre sëriñ Ari Sy nga xamante ne ci kër gi la bokk moom it nee na dajale nañ militant yëpp ñu génn fi nga xam ne moom mooy Thiès dajale nag pour teeru premier ministre xam naa ne Chérif loolu la am ci lu gën a yaatu rek ci xibaaru li nga xam ne moo jëm ci wàllu campagne fii ci di wàllu Thiès jërëjëf Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekkit chef division santé mentale ci ministère de la santé professeur yaa ngi woon ne violence bi ci campagne bettu la ndax gisoon nga ay band annonce ci média yi ngir ñoo xamante ni dañuy wattu kaaraange waaw ñu ne ñii kat dañuy wattu kaaraange bu yëf bi ñëwee nangam nangam xam nga loolu bu amee ba àgg ci publicité xëy na du ñàkk ñoo xam ni jël nañu fay nañu ànd nañoo ñooñu ki nga xamante ni tamit euh, liggéeyam lool la moom la war a def xëy na du ñàkk mu wane ni am na njëriñ wala ñu wane ni ah léegi kat kuy campagne ti war nga wut ku watt sa kaaraange. Mm-hmm. xam nga yooyu yëpp danga koy jël en considération xëy na tamit du ñàkk. Mm-hmm. ci militants yi am na ñoo xamante ni xamuñu nu ñuy wane seen cofeel wala seen xarañ wala ni ñu toppee nit ki lu dul ci doole lañ koy wane. moo tax yooyu yëpp dañ koy war a bàyyiwaat xel xool te ñëpp rek jubloo ko ci fitna baaxul nañu moytu fitna ndax am na ñoo xamante ni xëy na dinañ ko yee pour wane ni ay jàmbaar lañu pour seen leader gën leen a seen leader xam ne ah ñii kat am nañ fi njariñ ñii kat ñu fi nekkul woon tey du baax. Mm-hmm. yooyu yëpp daal dinay am solo bu ñuy càmbar ñu koy xoolaat. Mm-hmm. léegi bu fekkee na ñoom ñëpp dañoo jóg ngir jëriñ réew mi. Mm-hmm. est-ce que jar na ko parce que bu dee intérêt réew mi leen tax a jóg parce que booy politique aussi dañ ne politique la ko tax a jóg mooy nga jariñ sa réew. dëgg la kon jar na fit na googu. Euh, pour man ñi jóg di ko laaj ci sama xalaat. xëy na dégluwuma bu baax fitna yooyu fi mu jógee ni ma la ko waxee rek yaakaar naa nii du kàngam ya ñoo ko santaane ndax xam nga tey kàngam bu ñu fi ñëw it ne kii moo doon def fitna du nekk loo xam ni euh, dina baax ci yow dina gën ci yow bu fitna amee ñi ciy dugg ñëpp ay xale lañu. te xale yooyu ñoom lañu soxla moo tax fitna baaxul ndax li muy gaañ ci ay xale bu nit ñi xamoon li muy ñàkkloo réew mi ci faj bañ leen di faj bu ñu ñàkkee seen bakke nag buñ ci jëlee laagoog nga xam ni ñooñ ñoo ta war a tabax réew mi ak li réew mi di ñàkk pour ñu faj leen li seen mbokk di ñàkk pour ñu faj leen loolu amul lu ko war a jar. Mm-hmm. amul lu ko war a jar. image boobu nag buñ koy gis image violence mu nekk ci média yi wala ñu koy dégg ban conséquence la mën a am ci ci doomu aadama bi rawatina bu fekkente ne noo bëgg nit ñi dem vote ji ci contexte bi ñu nekk. waaw xam nga violence dafa baaxul di wane benn ndaxte bu fekkee ba feeñ na ñu koy gis loolu am na nu mu mën a def xaw ma ndax yéen yaa ngi fàttaliku. ay année deux mille dix ba deux mille douze bi printemps arabe bi commencé xew Tunisie ñu jëkk a wax la fa xew ñu commencé Sénégal ku taxaw sax sa sa sa sa sa sa leket këpp nga ni waaw buñ ci waxulee dinaa taal sama bopp bi ñu ko commencé wax ñun fi ñuy toog ci suñu service di réunion dañu tiit ñu ne ñii xamuñu li ñuy wax parce que am na feebar yoo xamante ni du wàllaate di ci microbe mais ci dégg-dégg ak gis-gis lay wàllaate ñun boobu la ñu tiit diggante 2010 ak 2012 su ma yeboo ma ni li ma jot ëpp na fanweeri nit yu jéem a taal seen bopp surtout ca buntu palais ba am na ñu mango ci buntu palais ba parce que dañ koy dégg ñu ne kii révolté na te ñi ko def ñëpp kenn àndu ci woon ak xel mu neex la tax ñu koy def amul benn raison mais parce que dégg nañ ko dinañu dem def ko am na ñoo xamante ni li leen di teree def mbir ñàkk koo gis waaye fuñ ko gisee walla ñu dégg ko dañuy dem di ko def keroog bi mbir yi amee ci stade ba am na ku ñëw di ko teg naan waaw ña fa nekkoon seen xol dafa jeex ba dañu nekk di toj lu ñu gis toj ko yu mel noonu ci sama xalaat baaxu la wax baaxu la wax ndaxte du yëfi nit nit koo xamante ni boo meree mënatoo téye sa bopp mhm. loo tombeel toj ko kooku dañ la war a wan sapeur pompier ñu jagat la yóbbu la ci bërëb ñu faj la ñu faj la justement faj googu sax la ñuy wax parce que ku nekk ci penc mi di fi fitna xëy na kooku laaj na ci wàllu si seen spécialité ñu ñu ñu jël ko en charge est-ce que yéen aussi yéen a ngi ciy def jéego ngir yu ni mel ñu mën koo xeex mais dëgg la parce que ñun nit ku yëngu di toj ay mbir ak di gaañ ay nit di def fitna di yàq alalu mbooloo ak yooyu dafa am fuñ la féetali ci xeetu feebar yi la bokk te dañ la war a faj ndax nit njaay ak lu mu mën di joteeg nit mënul tàqalikoo ak sagoom kuy wër di tàqalikoo ak sagoom am na lu matul ci moom te kooku war nañ koo faj war nañ koo yar ndax yar bi ca waajur ya bu manqué am na lu koy mottali fii suñu dëkk dafa am yoo xam ni buñ ko tegee nit ñi dañ koy gisee gisin bu ñaaw comme lu mel ni kaso koo dugal kaso ñu ne dañuy wuti avocat dañuy jëli kii pour mu génn mais suñu waxalee dëgg rek man yenn saa yi am na ay waajur yoo xamante ni seen doom dina nekk kaso mm-hmm. ñuy ñëw hôpital di ko indi muy ñëw consultation man duma duma ragal ne leen kii bàyyi leen ko mu toog ci kaso bi. da nga moo gën ñu koy bàyyi ci ci biir penc mi. waaw parce que toog bi mu fay toog dallu te loolu ñuy faj xel yëpp boo leen ko laajee ñoom ñëpp dinañ gis ne saay nit buñ ko yóbboo ci bërëb dëj ko fa mu toog loolu mën na delloo si waat xelam ci lu bari moo tax bu yar ba ca kër ga weesoo nit ñi bu ñu gis ni kaso lu ñaaw la. mën na ko mottali mën na yar nit mën na ko dëj mën na ko delloo si ba mu xam ni nit du àddina lu la neex rek nga def bu génnee mën a dëkk ak nit yenn saa yi aussi mu jur safaan du ñàkk ndax condition yi metti na mais du lu mën a ñàkk xanaa di wax ñu defaraat condition yi mais am na ñu bari tamit kaso moo leen tàggataat ba ñu génn ci yenn comportement yoo xam ni yaakaaroon nañ ni dootul dañ jërëjëf professeur ñu génnaat euh, dem ci biti tey jii nag ñu ngi ci biir ndakaaru ab euh, Pafara Gningue ginnaaw bi mu la nuyoo yow yaa war a topp caravane Abdoulaye Wade moom ci biir mbeddi ndakaar yi la bëgg amal ay yëngu-yëngam est que tàmbali ngeen waaw tàmbali nañ bu yàgg Chérif euh, Abdoulaye Wade nag dugg biir Sandaga foofu gars yi wàcc loo pour mu jaar ci suuf ñëw Euh, ñëpp daal koy teeru biir pàkku làmbaay nag fa la euh, mbir ma gën a wulee ñaay ba ni fi ñu toll nii mu ngi dugg biir Médina cortège voiture nag mënuñu wàññi nu mu toll mu ngi noonu di doog a génn nag ci li nga xam ne moo nekk moom génn ci kaw dugg biir Médina jëm côté mairie bi nga xam ne moo nekk mairie Médina waaye mbooloo mu bëri moom moo ko topp fu mu romb nag nit ñi daal di génn taxaw di ko teertu yaakaar naa ne Euh, tey ñoom bi biir Dakar bi xamaguñ nag itinéraire bi yëpp mais dugg na biir Sandaga wàcc na biir Medina mu ngi noonu yuuxu yi nit ñi ñëpp ñu ngi noonu taxaw Chérif Dia euh, xam naa ci kanam tuuti peut-être euh, dinañ mën a am dara ci moom wala déet waaye nag xam nga moom dafa jëloon silence waxul waaye jamono ji daal mu ci caravane bi mbooloo maa ngi ko toog. jërëjëf Pape Fara Gningue professeur Aïda Sylla ñu jàngat ba léegi tolluwaayu askan wi parce que Sénégal boo saa su nekk dana dañ naan réewu jàmm la li ñu dégg ci yenn réew yi du fi am ak yu ni mel lan moo tax kon fitna gin fiy wax lu bees la fi wala yàgg na fi. yàgg na fi yàgg na fi fitna ak doomu aadama ànd day am ay nit ñoo xamante ni noonu la ñu bindoo euh, comme niñ koy waxee seen ñoo xam ni seen yaram dafa tàng wala seen bopp dafa tàng daf fee mës am. fii lu ñu fi wax rekk amul lu bees àddina bi lépp fi mës a am dadi kañ dégg-dégg niñ ko daan déggee ak léegi moo wute ndax léegi nen sax boo ko baxalee eh, ca ginnaaw xodd ba ñu ne ko fàng ñépp ne baxal na nen ba kat toj na ko leneen génn na ci mm-hmm. te bu jëkk ba daaw ñu ko yëg bu jëkk ba benn rajo fi am xëy na sa yenn boo ko bootalee pile di ko fëgg bu paanee la xew ci bis ba kenn du ko yëg mhm. mais léegi lu xew fii wesaaroo dëkk bi moo tax lu bari dañuy ñëw naa ma ah mbir mi léegi dafa yokk man leen te dara yokkuwu ci mhm. dañ koy dégg nag léegi ñëpp koy yëg te bu njëkk ba daaw ak jamono ji ni muy avancé moo dëgg la lool la mhm. léegi mbiram solidarité aussi dañ ci des parce que aw askan moom bu nekk faw rek solidarité am ci dëgg la jàpp nga ni aussi loolu luñ war a ba moytu yenn yi waaw loolu dafa am solo parce que xam nga ñu ngi wax affaire fitna violence li koy indi jot nañ ci jàpp affaire yar bi mais bu weesoo yar bi tamit dundin bi def ciy jouer ndax nit ki su toogee ba ni man ak yow wane ni da ngeen a jànkoonte mm-hmm. loolu nekk na luy jur fitna nit ñi dafa war a am lu ñu bokk ndax fii li ñu xam mooy soo jëlee ñaari nit lu bari la ñuy bokk xam nga mën nga jël nit nga ni ah kii de ñoo bokk dëkk Thiès wala nga ni ah kii de ñoo bokk métier journaliste bi nga ni ah, bokk di faralandoo Barça wala nga ni kii de euh, suñu ñaari soxna ñoo jàngandoo boo xoolee ñun ci suñu cosaan toujours rek nit ñaa ngi wut lu ñu bokk di yaatal mbokk di ko xëcc te loolu bokk na ci loo xamante ni mooy prévenir violence ba ba ci kal voilà nit koo xam ni bokkoo leen dara sant na Touré rek walla Cissé yow mi sant si la boo ñëwee lu la neex di nga ko wax te ñemewu la mer ndax nee nañ ko bis boo ma laalee boo moytul dara dina la laal wala kii nekk na séeréer kee nekk na joola suñu gisantee mel ni ñoo bokk ndey ak baay yooyu dafa nekk yoo xam day wan nit ki ne ko du man ak yow rek dañu war a jànk jànkonte nga xam ni bis bu ngeen ñëwee taxaw ci stade bi kii faral équipe bee kii faral bee boo fàttalikoo ni Sylla laa sant mu sant Cissé te waruma ko gaañ loolu nekk na luy indi e, luy indi jàmm ba nga xam ni violence yi yëpp du am mm-hmm. ñun suñu système solidarité xëy na loolu nekk na ci benn façon bi ñu koy wane mais buñ ko teggee nag ba nga xamante ni nit ki dangeen di di tase bokkoo leen dara lu dul li leen di xaajaloo rek yow fee nga bokk man fee laa bokk loolu loolu loolu du lu baax loolu day indi kii lu baax ba léegi lan constat bi ñu mooy surtout jigéen ñi gis na leen ñoom it ñi ngi ci penc mi ñi ngi ci parti politique yu ni mel mais fitna gi quand ñoom gis na ni duñ leen ci dégg déggaguñ leen ci. waaw moo tax ñoom ñu gën a ànd ak dal que ñeneen ñi. waaw xam nga jigéen jigéen ñoom yàlla daf leen a bëgg ba nga xamante ni eh, yi nga xamante ni ci cosaan la xëy na ñoom ci ñoom la gën a diis. Mm-hmm. mais tamit li ciy des ci ñoom lay des ba tey jigéen ñi ba léegi ñu ngi dem di toppatoo di seet di defar ñooy dox mbokk. ñooy lijjanti ñooy téye kër yi ñooy saytu xale yi eh, yenn saa yi sax dangay toog mel ni jigéen ñi rekk a dese yar ndax xale yi jigéen ñi ba tey ñu ngi leen di tiim yaay yi naan leen defal lii bul def lii lii baax na lii bon na ba ci xale yu góor yi sax yaay yi ñooy nekk naan leen bàyyi lii defal lii lii baax na lii na eh, góor ñi toujours damay yaakaar ni góor ñi muy ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi dama naa est-ce que am na ay béréb wala ay cérémonie yu ñuy tase parce que même cérémonie yi bu ñuy ñëwee heure bii ñuy ñëw heure bi pas yi heure bii la ñuy ñëw xale yi alors que jigéen ñi ñoo ñëwandoo toujours ñu ngi xale yi ak mag ñi jigéen ñu ngi noon ndax ñu ngi ak ñoom ci biir waañ bi ñu ngay ànd marché ñu ngay raxasandoo bool xëy na jot gee tax góor ñi mënuñoo daje ah xëy na xëy na mais daal baax na ñu bàyyi ci xel hmm. ñu bàyyi ci xel pour que góor ñi nga xamante ni mag nañu di tase xale yu góor yu ndaw yi di leen gën a tettee di leen gën a ñaax parce que dafa mel ni daal relation boobu pour man de ak ñeneen ñu bari ñu may waxtaanal am na lu ci des. lu ci des am na lu ci manqué. Mhm. ñin jiital nag ngir ñu jiite ci wàll yëpp nag ci wàllu aada wàllu cosaan wàllu wàllu diine ñoom si lan moo war a nekk seen wareef ngir mbiram stabilité ak jàmm jooju. njiit ñu dox ko. mooy li ma wax ci njëlbeen képp koo xamante ni ñu ngi lay teg ngay wax. nit ñi di la déglu da nga ci bàyyi xel mm-hmm. eh, ni ma ko waxee woon ci ci ci ci njëlbeen léegi eh, ni nga xamante ni jokkonte bi am na solo yow li nga jàng juróom-ñaari at fukki at fukki at ak benn soo taxawee di ko wax ki nga xam ni xëy na baat bu neex rekk la ko yàlla baaxeel wala taar la ko yàlla baaxeel ba ñëpp fan ko sa wax yow mi ko jàng fukki at ak juróom day tollook moom mi nga xam ni mësu koo jàng su ko defee nag du ñu fi nekk de naan déet bàyyi leen ndax mën na indi beneen wax mais ñun dañ leen di woo rek ci ñu xam ni ñëpp a ngi leen di déglu ñu góor góorlu ndax xëy na noonu la demee ñoom la ñuy wane ñu góorlu ba li ñuy wax suñ ko mënee waxtaan ak nit wala woo ndànk koo xam ne xam na ko diisoo ci ak moom balaa ñu koy génne ndax ñoom it fii buñ la génnee rek kilifa ngay daal di doon ndax ñëpp a ngi xëy suba ba ngoon di la dégg mm-hmm. ñu génnaat dem bi yoon ba ca tugal Paris Ibrahima Camara ginnaaw bi ma nuyoo campagne bi foofu naka ngeen ko dundee alors campagne bi Chérif Dia fi mu toll nii nag distribution carte électeur yi moo fi jur coow lu rëy a rëy ndaxte euh, dem ci guddi kujje gi muy opposition bi dañu ñëw euh, fees dell ci buntu consulat général bu France mu nekk fii ci Paris ngir euh, bloqué distribution bi ndaxte nee nañu 17 heures la ñu waroon a tak takkal distribution bi waaye ñoom dañoo gis ni ñi nga xam ne ñooy waa consulat bi dañoo. Euh, faral ñii di waa APR ngir ñu euh, distribuer seen i lool loolu nag juróon fi coow lu rëy ba fi toll nii ñoom ñu ngi waxtaan waaye jubóogu ñu ngir taxawal ay commission yoo xam ne dañ leen di tas ci ville yi ndax am na ci ñoo xam ne dinañ def trois cent kilomètres ci ngir ñëw jël si mhm. seen carte électeur aller rek donc aller retour six cent kilomètres dina ñeneen ñoo xam ni tamit dina euh, dinañu bi ñu jot seen carte électeur ndax amuñu jot ci euh, li ñu wax euh, donc loolu yëpp fu ñu toll nii opposition bi ak ñi nga xam ne ñooy waa ak kuje gi ñu ngi ñu ngi waxtaan ngir xool yan pexe lañ mën a tëral ngir ñu bëree bëri mën a jot seen i waaye rush bi bëri na fi lool bëri na ñuy ñëw waaye bëri na ci lool lool ñoo xam yi tamit fu ñu dëkk sori na lool ngir mën a ñëw jël ci seen carte d'électeur ñu ngi topp mbir mi nga xam fu wànne bi mu jëkk jëtam si rek léegi kilifa yi ñu dénk consulat bi ñoom ban tontu lañ ci Euh, ñoom la ñuy xaar ni ngir euh, taataan seen i kàddu tontu bi nga xam ne moom la ñuy am mu jëm ci mbir moomu ñu ngi xaar consul bi ci fii ci buntu consulat général bu euh, Sénégal fii ci Paris Chérif waaye àddoogul ba tey ci mbir mi ñu ngi xaar daal nga xam lan lay lan la ci wax ñu jot leen ko ci suñu yeneen xibaar. jërëjëf Ibrahima Kamara professeur Aïda yaa ngi doon ci melokaanu njiit wante tamit yenn saa yi fitna googu même ci kàddu dañ koy nemmeeku ci penc Euh, yenn saa yi mu am ay wax ay wax fii ci ci joo xamante ne nit ñi dañ koy wër di wax te wax ji dafay ànd ak euh, fitna bu bari daal xëy na du fitna bu ñuy gis mais ci biir wax bi lay nekk te léegi dañu dem ba nga xam ne nit ñi defatuñ ko muy dara dangay dégg ñu naan day dóor walla day dóor màttu walla ñu naan dañuy sottente asib di ko wax di ree mais loolu dafa ëmb fitna. te waruñu koo ñàkkal fay dóor googu nga wax ma wayaan ma maanaam wayaan la lan bëgg wax dóor. waaw ñaan nit. waaw wala sax yenn saa yi njublan ko dañ doon wax door marto mais léegi damay dégg bu gën a fort ñu naan non marto piqueur marto piqueur mooy yoo xamante ni yi ñuy bënnee tali kii ne ah man dama ko marto piqueur euh, dañ koy wax kaf la di ree waaye nag. ëmb na fitna de. ëmb na fitna mën na mais day nekk loo xamante ni dañ koy banaliser. fekk banalul parce que déjà le terme dóor marto boo koy dégg xëy na yëkkati marto di ko dóor nit ni mu waroon a diise ci yow dootu ko diise. ndax entre le sens figure et le sens propre rapidement euh, euh, concept bi day dal di am ci sa bopp da nga koy daal di accepter. yooyu yëpp dañu war di ko bàyyi xel wala nga dégg jigéen ñi sañsee dem xew eh, eh, naan damay sottente asib loolu mooy dama jekk ba nga xam ni sama noon yi ma fay fekk duñu kontaan dinañu mer mm-hmm. yooyu yëpp dafay nekk loo xamante ni daal eh, violence lay indi mm-hmm. violence la loolu lépp dañu indi aussi ñu wax li naan mérite parce que loolu aussi am na ci solo ci loo xamante ni dañ koy xëccoo gis nañ démb président wax na ko bi mu nekkee ci concours général ba ak yenn saa mbiram tappale yi ne nemeeku ci examen yeeg yooyu mhm. loolu aussi dafay dem ba benn moment dañu yaakaar ne réew mi boo tappalewuloo la nga ñëw njaaj la nga bëgg doo am mhm. est loolu aussi jaaduwul ñu gën cee insister pour mbiram mérite ah, am gëdd gam amoon waaw loolu moom tappale na te keroog rek bi ñuy wax affaire examen yi euh, maa ngi koy wax euh, ndaxte jàngalekat la doon naa dem baccalauréat nekk président de jury mais loo mës a liggéey boo toogee xool ko maa ngi wax ak nit ma ni ko man ñii dem di di labaj pour am baccalauréat ma ni ko seen xalaat warul sori parce que booy dem examen nga dem lijjanti épreuve ba jënd ko génne nga xaalis jënd nga ko mais épreuve bi boo ko jëndee doo jënd feuille bu ñu def ba pare nga dem joxe boo demee ba ca salle ba bu ñu dindee bu ñu indee épreuve bi dinga def donc mooy épreuve ba def nga ko su dee xarañoo di ko këru jàng ko par boo ko jàngee par cœur dem ba fa ñuy defee examen buñ la ko indilee te wóoru la ni sax dinañ ko changer ci diggante bi buñ la ko indilee par cœur boobu di nga ko réciter mm-hmm. mais boo xoolee ak ni mu demee yépp loolu est-ce que jàngu ko gënu yomb finalement mm-hmm. ma ni leen man doon naa bëggu torop ñu indil ma ña nga xamante ni ñoo doon def loolu ma xool leen xool ñi ban façon nit ñi parce que dafa mel ni li ñuy def moo gën a metti la ñuy daw dem jënd épreuve ñàkk nga ci xaalis mais yaakaar naa ni dina metti et bac bi dañ ko sécuriser nag bu baax parce que loolu tamit problème yi am xëy na tax nañu fàtte ko mais dañ ko sécuriser ba nga xam ne léegi am na ay code bar ñu informatiser ko ma ni xëy na sax boog loolu moo tax ñu xamante ni amatuñu fu ñu jaar ñuy dem di jéem a wut ay épreuve ak yooyu loolu yëpp mën na ci ne mais bu coow amee yenn saa yi du ñu xool yëpp dañuy topp riir mi mhm. accusé kii dem kon loolu lépp day indi rek euh, laaj bi mooy day indi maanaam askan wi am na ci ñoo xamante ne démb sax président waxaat na ko c'est important mun fi mu naan ñii ci bokkut am na ko yoo xam ne bokkuñ ci dañ leen cee war a simpi maanaam société bi bu tey fa war a norme yu ñu war a tëral am mhm. ñu ko jalgati loolu dafa am loo xamante ni war nañu teg ko ci ñoom ngir bañ a am ah loolu moom. Mm-hmm. bal ngaa kii sax dañuy génnaat parce que jël kii bal ngaa sa réponse boobu ñu dem ca États-Unis Baba Aydara ginnaaw bi ma la nuyoo ayu bisa ngi nii duggoo campagne baa ngi wéy foofu ca Amérique du Nord gars yi ñu ngi ci terrain bi lu fa mën a jàpp. allo. oui Baba. Eh, waaw ñu ngi lay ziar bu baax ma ne lu ñu mën a tënk ci campagne foofu ca Amérique du Nord. waaw li ñu mën a tënk fii ci Amérique du Nord mooy comme ni nuñ ko yàggee di wax ni New York foofu la euh, xeex bi dëgg-dëgg nekkee ci jamono ci semaine bii nga xam ni nañu nekk ñu ci bare ni ngi woon ci état yi léegi nag ñoom ñëpp dellu si nañu replier nañu ci New York ndaxte New York tamit dafa am coow lu bare li nga xam ne am na ci moo di mbirum carte yi ndax buñ ko seetloo liste définitive bi ñëwoon bi ñu ni ñii ñoo war euh, ñoo war a woote biñ ko seetloo dafa am takku nombre bu bare bi nga xam ni ñooñu jotuñu seen carte buñ biñ ko évaluer yegg na presque ci vingt deux pour cent yi nga xam ni bind woon nañu euh, yaakaaroon ni daanu mën a woote malheureusement Euh, duñu mën a bokk ci jongante bi ndax tey ñoom seen carte jotuñu ko loolu moo nekk li nga xam ne daal coow la bu bare bare bare bi nga xam ne am na fii actuellement ci diwaanu Amérique hmm. euh, yenn nag ci li nga xam ni ñoo di candidat yi ñi ngi ñi ñi ñi ñi ngi ñi ngi affronté presse bi euh, comme suñu émission bi ñuy def bi ak Papa nga ñi ci bari ni ngi ñëw waaye am na candidat yi nga xam ne ba léegi ñoom danoo daw mel na ni daal ñemewuñu ñëw pour wax seen programme ca la nga xam ni moom mooy am foofu moom mooy ci loolu ni ngi jëm ci semaine bi ni ni nii dugg mhm. aadi boo ko mënee téye fii ci diwaanu Amérique euh, candidat yi ñoom taxaw nañu te nag am na appel bi nga xam ne am na foofu mhm. ci senegal ba mu di euh, manifestation yu demee ak li ni mel ci li nga xam ni moom moo di euh, mën a jot seen carte am na ñaari ville Cincinnati ak New York moom euh, wax ji bare woon na trop ba nu wax ni sax ab élection du am waaye tey jii bi ma consulter ca nga xam ni moo di police New York bi ñun fii bi dix heures quarante cinq minutes jotee fii ci police New York bi pour seet ndegam am na ñu def demande d' autorisation pour mën a dem manifester ci buntu ambassade ci buntu consulat wu Sénégal kenn déposé wul benn benn demande. Hmm. te te euh, te aussi que ni ci consulat bi ñoom it yëgunu ñi nga xam ni fas yéene nañu wax ni dañuy ñëw manifester ji. Hmm. ab violence bi nga xam ne am na foofu dellu si na aussi fii ci débat yi waaye fii ci Amérique moom loolu xel mënu ko xalaat bi ci boppam moo mënul permettre nit sax si sa biir oto sax nga am li nga xam ne dafa nduróog la nga xam ne ab tournevis la wala ab paaka la wala lépp li nga xam ne mën nañ ko boole ci xeetu arme blanche kon ci côté violence bi fii ki diwaanu Amérique moom lu tekk la waaye daal ŋaññ bi mooy acte yi nga xam ne yegg siwul waaw carte yooyu sax laa la bëggoon euh, laaj rek euh, baaba bala ñoo tàggoo lan la ci kilifa yi wax ngir saafara ko waaw moom nañu euh, moom nañu interpellé ki nga xam ni nekk na ci consul bi euh, moom ci boppam nee na ba léegi ñu ngi jokk ak euh, Dakar ci ministère intérieur nee nañu problème bi dinañ ko réglé ñu gi seen carte ñëwul tam dina dina dina yegg si ci ay euh, fan yu néew waaye ba tey tamit bi ba may woote tamit di di vérifier information bi carte yooyu yegseegul ki nga xam ni nag moo di Souleymane Bachir Diagne hmm. nga xam ni moom mooy jiitu décenat bi incha suba si sa émission bi dinañ ko indi pour que moom mu mën gën a expliquer tey situation bi nga xam ne moom la ñuy dundee fii. jërëjëf Baba Aydara nekk ca États-Unis di ñu toppal campagne foofa ñoom benn député war nañ koo tànn ca Amérique du ak euh, Canada jëm ci élection législative yi professeur Sylla yaa ngi woon ci ay xëy na ay sanction wala yu ni mel yu mën a teg ay doomu aadama yoo xamante ñi ngi ci réew mi. ba pare du jëfee li nga xamante ni moom la sart yi tëral. yaa ngi doon indi li président de la république doon wax démb te muy dëgg bu wér maa ngi la koy wax léegi yar dafa am solo mais yar du wees dañuy wax jàng du wees wante yar du wees xëy na dina rëcc waay jur. mais bu leen rëccee yoon mooy yar nit fii nag sànq maa ngi joxe exemple kaso mais du kaso rek même yoon yoon bu waree dal nit ñu ne déet yërëm ko daal di masla ñaanal ko njëkk. wala médiation sax ay. mango def moo tax bu njëkk ba même ci biir liggéey daawuñu indi yoon ndax dañ naan nit ki dina rus a def lii dina rus ki dina ko may cër mais léegi àgg nañu foo xam ni mbir mi jéggi na dayoo. moo tax sama yaakaar sama xalaat mooy ñi nga xamante ni ñu ngi def naka sudul noonu niñ ko waxee dañ leen a war a yar mhm. dañ leen a war a teg ci yoon ndaxte réew mi mënoo bàyyi nit mu koy yàq ndaxte bu nit ki doxalul li yoon wax day yàq mi ngi demel ni code de la bi may wax ci njëlbeen mhm. bu kenn ñëwee ne du ma topp code de la lu ma neex laay dawale mais dina far ba kennu jàmbur. Mhm. dinañ ñëwaat ñu dem ca njàmbur Thierno Fall ginnaaw bii ma la nuyoo yéen a ngi boucler seen deuxième semaine campagne foofu ca Louga lu mën a jàpp ci deuxième semaine bi kon benn rek moo ci des ngir ñu dem ci élection yi. waaw euh, Chérif ñu ngi lay fay euh, kon ni nga ko waxee rek ñu ngi ci deuxième semestre euh, semaine campagne bi fii ci diwaanu Louga mu mel nag nag umboon na ndax bari ay candidats yu nga xamee ni rek jot nañ see jaar tey nag ñu ci séntu kenn koo xam ne depuis démb mu ngi ci région bu Louga. ñu ngi woon boori daara muy euh, professeur Issa Sall bu Pire euh, moom la ñuy xaar fii ci diwaan Louga waaye li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku mooy euh, fi nga xamee ni rek ci la Benno Bokk Yaakaar moo habitude ci amal ay meeting ñoom tey ci la ñu ci seen meeting jàpp nag mooy mbooloo mu bëri bàyyi ko ku nekk ci département bi li ci ëpp bàyyeekoo ci daayira mu tak ci gise yi ñoom teew nañu mhm. jamono yi ñu ngi mobilisé wu toog xaar seen leader Euh, Issa Tall professeur nga xam ne moom moo fi war a teew ci daal. Mhm, waaw waaw. waaw mbiram carte électeur yi gis na ni ñu ngi koy wax Louga moom kilifa yan matukaay lañ jël ngir ñi am jootagul seen carte mën cee jot bala ñëw voté. waaw matuwaay yi benn bokk na ci bu nga xam ne nit ñi euh, préfet bi jël na ko mooy commission yi commission yi am na yoo xamee ni dañ ko délocaliser yóbbu ko ci biir carte yi pour que nga xam ne ñoo dëkk foofu. def seen carte facilement waaye li nga xam ne ni moom la jàmbat loolu yëpp teewul nit ñi dafa mel ne que carte bi dafa am problème te carte yi am nañu fóot mais nit ñi dañuy seen carte dolli ci waat ak jërëjëf Thierno Fall ca Louga professeur de Sylla ñu ngi woon ci loolu ba léegi gis nañ sànq suñ correspondant ba nekk ca États-Unis nee na moom kenn xalaatul sax ay tournevis ak yooyu mhm. kon doomu Sénégal moom bu demee bitim réew dina tënk ko sarte mais dafa mel ne bu nekkee suñ réew nag lu ñu neex def loolu day indiwaat suñ diggante ak li ñëpp bokk ba léegi dëgg la dëgg la mooy rek eh, masla beeg raay raayel beeg def mbir te xam ni dara la ci fekk ndax bu defee yow li ngay def xam nga ni lii boo ko defee lii dina la dal doo ko def mais na bu dee dara du la ci fekk walla même buñ ko ci waxee mën nañ ko lijjanti ba nga génn ci kenn ku nekk day def ni mu ko soobee. Mhm. ñu daanaka ci minute di mujj ci émission bi seen matière bi nag day loo xamante ni xëy na xamuñ ko bu baax te moonte am na solo lu tax ñu xaw leen ragal yéen. waaw li nga wax moom lu am la. ndaxte nit ñi ku ci ñëw ci ñun di nga ko waaj dinga nga wër-wër loo di nga ko jéem boo nee sax nit kaay nga dem ci professeur diw wala ci docteur diw wala hôpital sangam mën na cee jóge dootu la tudd ndaxte koo ko wax mu yaakaar da ko bëgg ne danga tàqalikook sa sago te ñu ci bëri tamit bu ñu agsee dañ naan waaw man bëgguma ku ma jàppee ku tàqalikook sago ñun nag dañ leen naan fii dangay ñëw dalal fi sa xel waxtaan ak. même stress rek normalement ku stressé sax war ngeen mën a régler la moom. dëgg la kon du mbiram ndoof kese. te loolu boo ko bañee di nga mujj ñu gis ne loolu nga ndaxte boo ko gàttanduwul bis bu la ëppee doole ba sa xel dem la nga doon bañ mooy daal di ne fàng li ma leen di wax mooy mbir mi kenn mënu koo nëbb nëbb bi mooy musiba ji mm-hmm. dem nag. toog parce que xëy na sax bu dee bu njëkk ba soxlawuñu ko woon ndax ñëpp a ngi fi woon am nga ñu la dëfal la ko dale ci sa kër ba say xarit ak say dëkkandoo mais léegi loolu amatul ba am na ñoo xam ne amuñu ku leen dëfal bu ñu jànkoonteeg jafe-jafe àddina mm-hmm. ah su ko defee nag comme am na ñu ko jàng di ko def dem ci ñoom dina am solo mm-hmm. ñi nga xam ne tamit dañu am feebaru xel ba seen xel dem na ñu tàqalikook seen sago tamit baax na ñu xam ni dañ leen di faj mais comme ni ñu koy gisee daal nga xam ni dara desatul lu dul téye nit ki takk di yóbbu war nañ ko mën a moytu. Mm-hmm. war nañu mën a aar ba nga xam ni nit ñi duñu àgg ci loolu. duñu àgg ci loolu ba laaj bu mujj bi rek mooy gis nañ ko keroog la xew ci stade bi ak violence yi d'habitude euh, laaj na ni gis nañ bu catastrophe amee aussi yéen da ngeen di yéex a ñëw est-ce que aussi laajut ngeen gën a farlu ngir ñi ko soxla parce que danoo jàpp ni it psychologue yooyu nasaraan rek ñoo ko soxla. du yéex a ñëw. dafa am ñu ñuy jiitu xam nga mbir su amee dañ koy saytu soog a xool ni ñuy def musiba bu amee eh, dara màbb wala ay nit dugg ci leneen ñiy jëkk a ñëw mooy ñiy aar bakken ñooy jëkk a ñëw seet ñi nga xamante ni dañu war a dabu ji seen bakken ñi nga xam ni dañ leen a war a faj ba pare ndaxte nit ki bu fekkee ba dañu war a dabu bakkenam wala gaañu na gaañu boo xam ne war nañ ko faj war nañ ko tabax du boobu lañ koy tëyee naan ko noo mm. toogal fii ñu waxtaan ak yow fokk loolu jàll bu ko defee nag ñi nga xamante ni mucc nañ ci loolu mu dese leen seen xel ñooñu la ñuy dem commencer ak ñoom man maa ngi ko doon topp xam nga mooy ni ma ko waxee rek réseau sociaux yi ñu ne waaw ana ñu kenn ñëwul ñu ngi nii ñu ngi naa boobu nit ñaa ngi dem di ñëw di càmbar di xool fu ñuy dem. parce que doonoo gis bu demee ñaa ñaanuñ ko yàlla mbiram terrorisme immédiatement dañuy teg benn cellule de crise boo xam ne dañuy yéet sa sa masse gi ña nga fa pour teel a jublu ci gars yi. fii yenn saa yi tamit dinañ ko def ça dépend ci fu mu toll. Hmm. ndaxte bu mbir amee service yi nga xamante ni ñooy jël nit ñi ñoo leen di jël mais bu dee dafa jéggi dayoo ba nga xam ni service yooyu mënu leen jël. ci la ñuy indi un dispositif spécial. dispositif spécial boobu day toog pour cadrer tànn nit ñi dugalaat leen ci circuit normaux yi. bu ñu toogee ba nga xam ni ñëpp dugal nañ leen fenn. dañ koy daal di tas mu daal di rompe ku ne dem. mais mbir mi du pëccaxoo du telli telli ki war a daral xel su gaawantoo ba moom tamit nekk ci stress dootul sotti dinañ ko def mais day ànd ak dal. tey ak calme ba nga xam ne li ngay def di nga xam foo ko teg di nga xam foo ko teg ñu dem fële rek euh, ca Bambey Babacar Diouf euh, ginnaaw bi mu nuyoo yaa fay teewal rajo Futurs Médias foofu it campagne baa ngi wéy luñ fa mën a jàpp tey. waaw Babacar euh, dafa mel ni kon yeggseegul léegi tey mu daal di ñëw Babacar Diouf ginnaaw bi ma la nuyoo ma ne campagne bi yéen a nga ca foofu ca Bambey luñ fa mën a jàpp tey. waaw ni nga waxee noonu la ñu ngi fii. ci diwaanu Njaareem tey nag premier ministre Boun Abdallah Dionne moo fii ñëw moom ci division bu mag lañ koy teeroo fii ci diwaanu Njaareem. Babacar xanaa da ngay daw. waaw damay daw parce que <laughs> fi ñu doon xaar premier ministre nekk fa. Mhm. dafa dugg ci marché Ndumba Diop fa la nii foofu lañu ñu bëgg a dem ci moom ñu ngi nii di daw ci mbedd Njaareem. Mhm. del tàggatuwaay. <laughs> di bëgg a jokkoo premier ministre xam naa. Mhm. pour mu jëkkati kàddoom yu njëkk ci li nga xamante ni mooy lakk bi fi amoon ci diwaanu Njaareem fi mu nekk nii nag mu ngi ci marché bi. waa jege ko mën nga koo jege ñu am ci tuut bala ñoo tàggoo. waaw xam naa léegi ma egg nag xam naa li ma defee bariwul. waaw waaw léegi tam waaw bala ngaa egg aussi déggoon naa la sànq nga doon wax ci rajo bi ay réero yu am ci responsable yi foofu. réero yi nga xamante ni moom moo am ñaari cas ñoom ñooy teeru ki nga xam ne mooy Boun Abdallah Dionne mhm. ci li nga xamante ni moo ci diwaanu Njaareem parce que ñi nga xam ne ñoo ànd a Aminata Sall dañoo vers seen wal ñeneen ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak beneen camp bi di mm-hmm. euh, daan jóg moom seen camp bopp la ñu far mm-hmm. ñoom ñëpp nag ku ci nekk tant na tantam ne daal di nga jege premier ministre bi nga xamante ni moo di Diouf diwaanu mm-hmm. Ndiarène mën a jàpp moo di premier ministre nan lay réglé loolu fi mu njëkk bi étape bu njëkk bi mooy marché lu méjo mu ngi fi mu nekk nii di wër li nga xamante ni mooy quantité yi ci lakkoon xam naa dinañ ci ñëwaat ci kanam parce que eh. premier ministre xam incha allah lool lool lool. allah ñu ngi lay sant di la gërëm euh, professeur Aïda Sylla laaj bu mujj bi rek mooy yaa ngi yëngatu ci wàllu wér gu yow looy xaar ci assemblée nationale bi nga xamante ni nan doon koo fal ginnaaw fanweeri fan ci weeru juillet. waaw man de li ma ci xaar mooy wax dëgg yàlla euh, ñu fexe ba am ay ñu ñu fa toogal ñu ñu fa toogal ñoo xamante ni dina ñuy déglu dina ñuy déglu askan wi. di ko déglu nag ci niveau yëpp ndaxte am na fi saa yoo xoolee rek ci biir askan wi dina am nit ñoo xamante ni am na yu leen soxal ñu ngi ciy gëstu ñu ngi ciy jéem a seet ak xel mu rafet nuñ ci jëmee kanam su boobaa yaakaar naa ñooñu leen fa toogal bu dee ñu ngi continuer di jokkook nit ñi di leen déglu te liñ leen di wax ñu koy yóbbu foofu di ko waxtaane rek te ñëpp di dégloonte euh, loolu dinañu may dinañu def ay jéego ci soppi yoon yi ci yu bëri yoo xamante ni dinañuy jànkoonteeg moom mu jëm ci jafe-jafe noo xam ni dinañ ko mën a teggi mhm. ndax yaakaar naa ni lu am solo la léegi yoon maanaam muy loi yi mhm. ndax loolu rek moo ñuy encadré moo ñuy cadré ña nga xam ne nag ñooy toog fa ñu koy defee war nañu bàyyi xel ci loolu waaw di jël initiative di waxtaan ak nit ñi di xool li ñu xalaat di xool ñi ci avancé ak liñ ci proposé ngir daal ku nekk mën cee gis sa bopp ni niñ koy waxee. Mhm. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias. jërëjëf yi kon fii leen ñu yem ak yéen seen émission riiru campagne comme ni ñu koy defee nag saa su nekk bu tàkkusaan jotee ànd ci ak borom xam ci fànn yu nekk ngir rek moom it mu gunge ñëw ci émission bi ñu ngi leen sant di leen gërëm ëllëg samedi incha allah di ngeen ci ànd ak Ibrahima Kane maa ngi leen jox ndaje altine incha allah jërë ngeen jëf.